Aliou Sall défendre non non wax ma deful dara de. waa Guédiawaye info ñoo ma interviewé wax ma ci Aliou Sall parce que Aliou Sall du ma ko défendre du ma ko défendre du ma ko défendre nekk naa fekk parce que sekkuñu ko sekkuñu lu ma koy défendre mais am naa plein droit ne sama mère la xam naa ko nii nii nii nii euh, nit ku am responsabilité la nit ku gëm boppam la liñ koy jiiñ ñu ne ma ba xam gëm nga ko man leen gëm ma ko xam nga. tey man bu ma la waxee ne la xam naa ci dara ci lu jëm ci contrat yooyu wala ci lu jëm ci pétrole waxuma dëgg man ni may jotee information yi mooy dégg rek naan six mille milliards rek nangam ak nangam léeg-léeg li xam nga nit ki booy seede ci moom hmm, dafa am looy seede ci moom mooy jëfam wala jëmmam day tax dangay ngay mën di seede ci moom man seedewu ma ci moom ci li mu jëf mais dama seede ci moom ci nit koo xamante ni xam naa ko en tant que nit ak nit. Alioune mooy nu may xaalis Alioune nga xam ni man maa ko gën a sonal ci géejawaay booy wax acteur culturel à part Pape Moïse man nga cee teg <laughs> Pape Moïse moom bosam siiw na parce que daf koo wili paande ci Facebook bi. Mhm. waaw xam nga Alioune Sall relation bi ñu am mooy. Hmm, man damay organiser festival international de théâtre de Guédiawaye chaque deux ans biennal la 2017 laa ko defoon euh, tey Alioune du ma lépp lu may organiser daf ci jàpp mais am na ci yoo xamante ni daf ciy jàpp tey sañ naa tëdd ba guddi ma envoyé ko message mu répondre ma comprendre nga wala ma ni ko bëgg naa nga recevoir ma ci lii ak lii ak lii. donte ni bi muy boo leen duggee ci internet bi di ngeen ko mu gis bi muy def conférence de presse mooy festival de la culture bi mu waroon def géejawaay mu doon def conférence de presse ci mairie bi menn man maa fa taxaw wax ko li ma koy wax ci wàllu culture ñëpp di ko dégg ma ni ko benn amoo sunu jot doo ñu recevoir duñ la gis ñaar ñun dañuy am ay partenaires surtout côté extérieur xam nga kuy def festival international da ngay am ay partenaires extérieurs da ngay am ay compagnie yu nekk extérieurs yu war a ñëw ma ne ko ñun dañuy soxla signature institutionnelle dañuy soxla euh, tey ñu am ay amoon naa fi benn partenaire boo xam ne day yëngu ci wàllu cinéma mu ngi nekk Bruxelles Wallonie fa la dëkk wallo nii moom moo waroon tey ñun ñu defar papier yi jox Alioune Sall mu signé. ñun ñu mën ko envoyé maire Wallonie pour kooku ñëw former vingt jeunes géejawaay ci wàllu cinéma yoo xam ne da koy da leen di former trois mois ci biir trois mois yi dina leen jàngal ni ñuy bindee dina leen jàngal réalisation dina leen jàngal cadre te balaa muy dem pendant un mois dina ku ci nekk di nga defar benn film boo xam ne après dañ koy projeté loolu avantage la bi ma ko waxee wax naa ko ci conférence presse bi ma ko waxee pour moom mu signal ma dossier boobu rek pour ma gis Alioune Sall problème la kon tey am na ci yu bari mu ngi may rëcc te loolu li ma mënoon a jariñ wala li mu mënoon a jariñ géejawaay parce que ñooñu tey bu Alioune Sall defoon loolu suñu partenariat day gën a yokk mais defu ko kon bu nu ma waxee défendre du défendre mais nit ki da ngay wax li nga li nga li nga xam ci moom défendre ma ko en tant que ca pétrole ba parce que xaw ma ca dara waxuma deful dara gëm ma ko. xam nga <laughs> Sénégal du nu préciser xam nga maanaam wax ñett la tey boo nee toogul di nga wax riigul di nga wax dëjul yooyu yëpp ci xeetu toog la du gëm du deful dara mais man maa gëmul ni def na ko ak apparence am ak li ma xam ci moom man gëwuma ko mais ba xam moo def wala deful nag wax dëgg fa yàlla xawma ci dara <laughs> lu ma xam ci Alioune Sall euh, wax naa ko léegi. li ma xam ci moom mooy xam naa ni nit ku nit ku nit ku baax la benn parce que nit ku baax moom waxuma la boo koo gis télévision sax da nga gis ni nit ki nit ku baax la wallaahi ñeme naa ko waat sama yaay ji fi des yàlla bu mu fekkee sama njariñ yàlla bu ma ko yóbbu màkkaman ci li may ut sama liggéey laa la wax de Alioune Sall bu fekkee mus na maa bokkal xaalis lu dul cinq cent mille yi ma la wax nela bi may dem Togo waaw daaw bi may représente Sénégal Togo moom la ma jox ndàmpaay pour samay frais de voyage mais waa ministère ñoo ma dagal billet sept cent mille escay tey à part sunu festival lan la ñu jox non non cinq cent Aline Sall Rachid moo ñu jox deux cent cinquante festival international budget bi nekk vingt huit million ñu waroon déplacer cinq pays yu jóge à l'extérieur ñëw man sama festival sept jours lay diire juróom-ñaari fan est-ce que loolu lim ñu jox mun na satisfaire festival bi te pourtant def nañ ko ba fere ci ay millions boo xoolee amuñu woon vingt huit millions yooyu mais digg ba mois moitié ba def nañ ko ci festival bi te moom gis nga dégg nga li ñuy wax cinq cent mille lañ jox kon defaluma lu extraordinaire ba may wax ci moom loo xamante ni amul parce que man je crois que sama kër euh, bi ma beroo man ak sama ñoom yaay les ëpp na dix ans ñu jóge sunu kër famille man leen dañuy tuxu parce que yàlla ak may dimbali sama kër maa ko yor kenn yoralu ko maa ko yor maa joxe sama dépense te boobu xaw ma koy Alioune en tout cas gëm naa lenn ne Tan Bombe dafay nekk artiste avant Alioune Sall période Alioune day nekk artiste bu fi Alioune Sall jugee day continuer nekk artiste kon duma wax ci moom loo xamante ni xawma ko ci moom waaw.